Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara am mbégte lool ci teew ci ëttu mbaax bi nga xam ne ku xam dara ci taarix nga xam ne mbaax yàgg na fi di siyaare mbokk yi fi nekk yépp mbokki sant baa ngi sant ka ak ñeneen ñi fi nekk ñépp te askanoo fi ci xur wi te bari lool ñoo xam ne seq nañu ak ñoom di nuyu bu baax nag ak ziyaare njabootu sunu maam Sëriñ Njóobu Mbakke mi nga xam ne ñoo fi woote jataay bi ñoo sakkoon it ma ñëw ci ngir ñu waxtaan layante biir ci ak mbokk kon nuyoo bi ñu koy teg ci loxol sëriñ Saalihu bu jiitee délégation bi di leen ziyaare bu baax di leen ndokkeel sawar naa nag wax ci sëñ Jóob ndax moom maak moom lu yàgg bokkoon nañu dëkk kon maa ngi am mbégte lool ci ànd ak bokk yi ci fàttaliku nit ku baax kooku bàyyi koo ci ñu baax léegi sëriñ bi wax ne ko fii ci boofeel kenn du fi gis waa kër sëñ Njóogu di leen wax ne lu ngeen fi wut fi lañ bokk sëriñ wax na ko léegi ndax sëriñ Njóogu way juróom soxna jama ba maam Abdou Xaadir ba ko jur maam Baara Sadio waaye ñoom it nag kenn du leen gis seen diggante Mbàkke di wax ne lu tax xam nañ ne Cerno Farimata wala boog Ahmadu Farimata mi taaw maam Maaram bu góor benn doom bu jigéen la ko yàlla dénkoon muy soxna Astu Mbàkke maam Baara Sadio ko nu dénk moo ci jur am Abdou Xaadir rek Ceerno Kaba ak ñañ bokkal ñépp euh, kon mbokk gu yàgg la gu xóot koo xam ne ñu bari laal nañ ni ñu ko waxee léegi it xam nañ fii ne maam Balla Aysa dëkk na fii lu yàgg dëkk ak doomi ndeyam di maam Baara Sadio seen ñaari day bokk ndey ak bàyyi waaye ñu jaxasoo ñëpp ndax Baara Sadio ak Aysa am na keneen ku ñu wax Yaasin koo xam moo jur soxna Anta Njaay Mbàkke mi jur maam Seex ñoom ñëpp nag Sidi Dem mii seen yaay Sidi Dem mii seen yaay Lamin Dem ma Lamin Dem mag maa ko jur li taxoon soxna maam Baara Sadio jël soxna Astu Mbàkke du asar ñoo bokk ci Mbàkke waaye ñu bàyyi xel ne Anta Dem mi jur soxna Astu Mbàkke ñàngaan Dem mi ko jur doomi Lamin Dem kon ay mbokk yu yàgg yu xóot moo leen boole ñu ànd ci mbaax ànd ci njub taarix it nettali nañu bi nga xamee ne soxo eh, Cheikh Omar yu Tall nga xam ne seen mbokk Cheikh Omar ak Mame Balla Aïssa ay doomi ndey lañ ñu bari xëy na xamuñ lool ak Mame Bara Sadio mi ay doomi ndey lañ bi mu ñëwee fii ci Mbàkke te seq fee ñu bari bokk na ca li ñu taarix net li ci lim seqoon na Mame Bara Sadio ba ñu bari wax sax ne moo ko feeñal ba nit ñi xam ci moom lu ñu xamutoon ba mu jàllee tuuti la génneel ñu ko nettalee nga xam ne bi mu fi ñëwee booba dañuy wax ne mag mbàkke yi ndaw yi mbàkke yi toll ci seen digg doole te jàmbaare ci xam-xam ñaar lañ ci doon tudd maam Ibra Kani ak maam Mor Anta Sali mbàkke yi ñaar ñooñu lañ yabaloon ngir ñu gàttandu Cheikh Omar di ànd ak moom ndax seenu njàmbaare ci xam-xam ak seen taxawaay ci diine te booba ay ndaw lañ yoo xam ne dëgëraguñ lool kon loolu di ànd bu yàgg ci baax ci ànd ci njub kon bu fekkee ne waa kër Serigne Diogu ñëw nañ fi fi amalu jataay ñu ngi dundalu mbokk te ak mbokk nag mat naa dundal ndax ni ko wolof yi waxe dëgg la alal yàlla la ak mbokk alal yàlla la ndax dogalu yàlla la bokk na ci yi nga xam ne doomu aadama du ko tànnal boppam moo tax it du ko ndamoo ndax coobare yàlla rek mooy feeñ ceew nga bokk fi nga bokk amul kenn koo wax ne mooy wax ne man fi may bokk ñi may jur maa yàlla lay baaxee nga juddu fekk ñu baax wala mu nattu la nga juddu fekk ñeneen waaye ku yàlla baaxee nag nga juddu fekk ñoo xam ne alxuraan diine xam-xam ak njub moom lañ leen xame fuñ mas a dem loolu lañ fa dem barab buñ mas a nekk ay taali jàngale kooku da dangay sant yàlla te bërëb yi nag loolu la ndax maam Mahara Mbàkke bi mu fi ñëw ñoom fi la leen fekkoon ñu dalal ko ndax bokk lu ñuy liggéey ba jaxasoo am ci mbokk gi juddu ci ñu dencante ba tey damay faral di wax ne ahmadu ahmadu farimata ay sëtam ku koy wër fii ngay ñëw ak caaween amul ku sant Mbàkke ku muy sa maam moom ndax moom benn doom góor la amoon muy ibra xujja ibra xujja am benn doom bu góor maanaam euh, ahmadu farimata benn doom bu góor la muy Mbàkke ndaag soxna suñu wax ndaag kebe dëkk kebe xaaxam moo ko juróon mu am ca benn doom bu góor bu tudd ibra xujja kooka am benn doom bu jigéen nga xam ne moo dem caaween soxna xëri saaw ñoom moo leen jur kon ñi sant saaw tey ak ba dëkk fii ñooy sëti ahmadu farimata mi taw ma maharam mi nga xam ne bi ma maharam ñëwee mbàkke sanc ko wax na ne ci benn bis juróom ñaar fukki buntu kër xotti nañ ko fi ay fan la fi am bàyyi fi taawam boobu dellu jolof ba mu jóge moo fi nekk ba bi mu génnee àdduna ci la rakkam Ibrahima Awa Niang maam Ibrahima Awa Niang ñëw wuutu si ko kon ànd bu yàgg la ci la jaxasoo googu juddoo ba mbokk gi am ci mbokk googu nag mbokk yi lu mat a bàyyi xel ndax ni ma ko waxee léegi alal yàlla yàllaa koy dogal ci nit yi nag sunu borom mooy dogal nit bokk fenn coobaree met la yàlla kenn nit la njëkk bind kenn nit yaa ayyuha nnaasu ttaqu la alladi xalaqakum min nafsin waaxida kon doomu aadama yépp ci kenn nit leen jóge muy aadama ci aadama mu la génne xawaa sant leen ñu ànd ba doomu aadama yi juddoo neexoon mu def ni def malaaka yi malaaka yi li ñuy bari bari kenn amu ci nay kenn amu ci bàyyi kenn kon yàlla la bind sàkk la teg la fi barab mënoon naa def doomu aadama yi noonu waaye coobareem du loolu da leen bind ñuy jokkalante ñenn ñu ne bàyyi ko ci ñenn fi doomu aadama yi lu wuute ji bare bari lu couleur yi wuute wuute wala waxi ni wala melokaani wala pas-pas yi càllale gi moom boo ko toppee fenn la jëm moo tax ñun ñëpp yi aadam la kullukum li aadam bu ñu neexee sax ñun doom yi suuf sii lañ kullukum li aadam wa aadam min turab kon suufay sunu maam kon ñoo bokk menn maam ko defee nag bokk googu yàlla daa bëgg ñu saytu nit it la la la wutal ay bokk sant leen ñu di ko jokk xar yi ak bëy yi ak picc yi njanaak am nañuy bokk ñëpp am ndey ak baay ak bàjjan ak yëpp waaye doomu aadama la yàlla sant mu jokk ay bokk dig ko ci tëkku ko ci dig ko ci tëkku ko ci bokk na ci bàkkaar yu bëy yàlla di rëbboo nit dog ak mbokk dog ak mbokk kon day wane ne lu mat a bàyyi xel la lu mat a jàpp la lu mat a waxtaane la fu ko yàlla boole ñu yàlla boole ñu rek suñu borom du juum lu mu def noonu la kon loolu mën naa bàyyi xel dogalub yàlla wa la alladi xalaqa min al maa'i basharan fa ja'alahu nasaba fa ja'alahu nasaban wa sihra kon ci la sàkk nit ñi bi ci desit ngir xam ne ak mbokk ñor na yàlla bari na ci lislaam atte yoo xam ne ngir sàmm ak mbokk moo tax lislaam tëral bañ ak mbokk jaawaloo bañ ak mbokk jaxasoo moo tax ñu tër atte bokk na ci lislaam day xaramal adaptation adaptation li ñuy wax taban nii maanaam jël nit jël ko def ko sa doom yéegal ko ci saw askan lislaam da koy tere te xam nañu njëkk lislaam amoon na yonent yàlla muhammad alayhi salaam jëloon na zeyd ibnu xaarisa jàppe ko doomam bañ daan ko wooyee Zayd ibn Muhammad alquran xëy ñëw ne uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fa ixwaanukum fi diini wa mawaalikum na ngeen leen askan seen i baay loolu moo di maandu bu ngeen xamul seeni i baay ngeen jàpp ne seen i mbokk dina waaye bu leen leen yóbbati ci askan woo xam ne bokkuñ ci ndax bëggut askan dëgër loolu day wane am solo gum am solo ba kenn ku ne fa nga bokk nga bokk moo tax gis na soppi aw tur bu rafetut waaye aw sant askan la di ko sopp yooyu it mat naa xam bu baax a baax kon taban yi lislaam da ko araam nañ ko loolu xaddu zina li tax lislaam tër ko bokk na ca bañ ay askan yu jaxasoo kon kuy caaxaan ba indi doom joo xam ne amutu askan daf nga njaaxum gu rëy rëy daf nga léexul gu rëy goo xam ne war nañ laaj caw ba nga màndi wala sax ñu rey la moo bu dee ko sangewu dañ koy rey ndax lan dafa indi ci àdduna nit koo xam ne bokkul fenn bokk yi bàyyi xel loolu doomu yàlla amut aska kenn du ko askan ci kenn lu ñaaw loolu nag moo tax lislaam ñaawal ko ñaawal gi mu ko ñaawal waaye teg ci daan yu mag yi mu ci teg ba tey xaddul xas fu ku tuumaal nit ni ko bokkoo ci sa askan wala sa baay juru la dañ la yóbbu ci penc bi caw la juróom-ñett fukki yar ndax ñaawtee fu réew nga def kenn du génn nit ci aska loolu wéy ju sax sañu maanaa sa doom jëga jur amul benn sañ-sañ ci ne ko jurimal bis boo ko waxee bu la yóbboo ci yoonu caw ak loo màgg-màgg na ndax fa ngay jaar ba wax loola ay étape la yoo xam ne boo ci agut soo ko waxee dañ lay jàppal ku yàq deru nit te ku yàqut dara dañ ko war a caw ndax sàmm askan kon loolu it day wane ne askan ñor na yàlla suñu borom subhanahu wa taala bari na ay sëriñ araamal bokk na ci xekkam ya bañ ak mbokk yàqu moo tax kenn du dencaloo ñaar ñu bokk ndey ak baay wala di bàjjanam ndax ak kujje daa mën a yàq ak mbokk luy tax mu yàqu rek dañ koy tere kon bokk na ci xikam yi ñu jàpp ne eh, wax ne lislaam da koy tere ngir yu eh, li ñuy wax ne attay lislaam yépp dañ koy delloo ci juróom mbir yu tudd ay kulliyatul xams boo ko seetloo bokk na ca sàmm askan nga xam ne bari na atta yu tër yoo xam ne loolu moo tax yàlla tëkk loolu lépp day firi am solo goo xam ne ak mbokk am na ko solo ci mbir yi nit lu baax lu ne lu baax lu ne ci say bokk lañ la sant nga def ko ci yonentu yàlla Muhammad alayhi salaam da ko yàlla yónnee jël bu gàtt la ko wax ne ko andir ashirataka laqrabin lu baax li nga indi demal nga waar nga xupp woo ci say bokk yi la gën a jege moo tax nit mu am ci lu baax bokk na ca lañ koy sant bu mu ca fàtte ay bokkam ndax li leen dox sax na sax ci xadis ni nit ki bu saraxee am na sarax waaye bu saraxee mbokkam sarax la jokk mbokk la waaye wa hiya ala di rahim fintaani sadaqatun ne saa boo saraxee sa mbokk am nga tuyaaba ñaari yoon mbokk waaye sa def nga lu baax loolu solo goo xam ne am solo wala di yasluuna ma amara allah bi an yusal su borom wax ko ci alxuraan bokk na ci li yàlla digal ñu di ko jox ak mbokk ku ko def suñu borom digal aw yu bare bare bokk na ci la mu waxoon it ne ndax du leen wax loo xam ne bu ngeen ko defee dangeen ngeen tàbbi àjjana ci jàmm mooy na ngeen fonk nuyoo na ngeen fonk joxe aw ñam waaye na ngeen jokk seen mbokk na ngeen fonk di julli guddi bu waxtu bu nit ñi nelaw bu ngeen ko defee da tàbbi aljana doomu aadama ñaar la gën a bëgg ëpp ci nit ñi wërsëg ak gudd fan ñun ñëpp ko bëgg bëgg nañoo gudd fan bëgg ci làmmiñ yoon gudd fan ak wërsëg jokk mbokk da koy waral man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yumsa lahu fi ajali fal yasil ku bëgg aw fanam gudd wërsëgam yàqu na jokk ak mbokkam kon loolu it bokk na ci tax xam ne am na solo am na xadis qudusi bu borom bi wax ne ana ana allahu wa ana arrahman xalaqtu rahima wa shaqaqtu laha min ismi fa man wasalaha wasaltu wa man qataaha batattu man yàlla maa tudd rahmaan ci baatub rahmaan xaraf yooyu raaxaamim ci laa xare ak mbokk ak mbokk tur mu am baatub rahim borom bi nee na maa ko jële ci sama tur wi tudd rahman wax ne ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog kon déggee ngi ci tëkkoo nga ci ku jokk ak mbokk yàlla jokk la yàlla nag mooy yiir la aar la waaye di yàlla defal waaye yàlla mën naa moytu mooy mu xañ la yow wala yi ak mbokk doole la ku ñu gis ñu néew ko doole daa amuti bokk wala amuti bokkam yonent yàlla Shuayb alayhi salaam ba ko noon yee di wax dañ ko ne leen rek moom jaaxal sa mbokk yi rek walaw laa rahtuka la rajamnaak wa ma anta alaynaa bi yow daal soxla waaye sa mbokk yi xam na ne buñ la laalee am problème kon bu ànd ak mbokkam doon nit dégg nga wala amuti ki bokkam day mel ni soldaar buy xare ji te yor ngànnaay àgg fa mu jëm moo tey mu ñàkk bakkanam axaaka axaaka inna man la axaalahu ka saaxin ilal xëjaa bi xëyri xusaabi kon yooyu it day firi am solo ak mbokk Seydina Aliyun karamallahu wajhahu doon wax ku mu doon dénk ne ko na nga fonk sa mbokk na leen teral ndax boo doon am picc ma ne ñooy sam laaf ñooy say laaf yi ngeen naawe boo doon am picc say mbokk ñooy sam laaf ñooy say laaf ci ñoom ngay ngay amee doole ci ñoom ngay mën a jàmmarloo adduna ci ñoom ngay mën a faje say soxla kon nag leen fonk kon loolu mbokk yi lu am solo ak mbokk nag ay àq la ñu bàyyi ko xel ni ko yàlla fonke mu mu boole ñu ci am na àq ci am yoo xam ne moo xam ko doon am njëriñ bi ci jiitu mooy xam ak mbokk dañ ko war a xam lu ñoroon mag ñi la nga xam ne képp ku ñu bokkal xam nañ la saa bu ñu dem ci barab gën a yóbbu gën a la. ngir boo ëllëgee nga xam ne say mbokk lañ ndonal mbokk gi ñu fi bàyyi boo ëllëgee mën ko doon loolu nag bokk na ci tàmbalee raaf ay nit ñu jegee lool bu ñu xam lu mu bokk ñu nga gis léegi loo umpule nag mën na ko wax ne man jahila shay'an adaahu al insaanu aduwwun li ma jahil naa ne baax na lool jox yitte nag nit naq leen ci ñu xam seeni bokk doomu aadama bokk boo ko amee nu mën a mel rek sant yàlla ñaar rek mën wala ñett ñu tiim la wala nga tiim leen wala ngeen toll boo amee mbokk yu la tiim santal yàlla saa boo jaaxlee dem ci ñoom soo amee mbokk yoo tiim yàlla yàlla mi la bind bind leen la teg ci seen kaw santal yàlla te jaamu yàlla ci ñoom soo amee mbokk yu mel ne yow dafa leen di nga def sa bopp boo ko defee da na daal waaye ak mbokk deesu ko sàggane deesu ko fay bokk na ci li tax nag nga mën nga xam waaye nit koo xam ne tey mën ngeen a jege loolu romb bokk barab yenn ba moom ku ne dem mag ñi daw def loolu fu ñu mës a dajee bala ñoo tàggoo kenn kon ne dañ la li nga bokk sama ak mbokk daal ñor wolof yi bay àgg ci carrière yoo xam ne jàpp ma ne am na ci weneen xeet am na yuñ yoo xam ne maanaam li ñu tuddee yumpaañ gëw ma ne am na ko daal sa sa xam ne yaa ngi seen ëllëg mën naa am mu jural soxna boo ko sàgg boo ko wala kii ko boo léegi mën naa naqari ñu wutal ko aw tournée nag suñ dee ko waaye yóbbu kon du ko sàll loolu dëgër ak bokk ak fonk ko la waaw ay doomi bàjjan doomi nijaay ñu am ci yu bari yoo xam ne dañ ci mën a mën a mën a dëgërale kon loolu jàpp naa ne euh, ndono lu war a sàmm na kon nañ fexe ba njaboot gi ñu jàngal leen mbokk gi ñu di ko xam di ko sàmm fii nag yàlla def na su foofu ay kilifa ay mag ñu baax yoo xam ne ku mel ne Serigne Moussa Ka dëkk nga xam ne fii rahimahullahu taala wa radiya anhu liggéey na ci liggéey bu am solo. déglu sunu borom li ñu tënk li des waxtaan wi rek ñu doon wax ci ne. yi nga xam ne ak mbokk am na ci bokk na ci xam ko kon faaw ñu def yitte ci xam ko ndax daa am yu bari yu ci aju bokk na ca xam nañ ne ci ak mbokk ak doon ci lay am ñàkk xam mbokk dana jur nit faatu ña ko war a doon duñ ko doon ndax xamuñu ay bokkam léeg-léeg ñu wax la ne diw daa faatu waaye dañ la amuti bokk bu jafe la ñaare sàggan mooy tax kenn xamuti bokkam loolu it mat naa moytu bi ci des it xam nañ ne ñi dencante am na fu ko lislaam yamale am na ñoo xam ne ni ñu bokkee tax na sañu ñoo dencante ñàkk koo xam dana waral ñu takk koo xam waru ko takk te léeg-léeg ngeen dégg ñun la diw daa takk soxna soo xam ne waru koo takk mas damaa xam koo xam ne kam takk moom maamam ñoo bokk benn baay takk na ko ba jël ko ànd moom tudd nga xam ne yi cay bare bare la te bu ñu ko xamoon toppatoo ko loolu lépp lu am bi ñu def it xam nañ ne jigéen faaw day am kilifa bu waree dem bu kër bu ñu koy mayee am na kilifa bu ko war a maye ci ay bokkam la ñu tàmbali loolu war naa tax ñu xam bokk yi xàmmee leen ak leneen lu am solo loo xam ne dañ ko sàggane fii tëb am solo mooy li ñuy wax diya yàlla tere bu nit loroon nit te teyu ko alal ja ca war alal ju bare bare la joo xam ne dañuy wax ne ki ko def ki ko sabab moo ki bokkam ñoo war a daje jox nga xam ne léeg-léeg nga gis koo xam ne yow da ngay jàpp ne sequ leen dara waaye yàlla tere bu bu lor ju mel noonu daloon ci kawam yow dañ la fekk fa nga nekk laaj la xaalis ndax dañuy wax ne juróom-ñaar téeméeri góor ci bokk geñoo ñooy war a daje cotiser joxe téeméeri gileem yi nga xam ne bu dee góor la ñu rey nga fay téeméeri gileem juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ne ñoo bokk menn maam moom soxla ko ci góor yu nekk baale loolu nag bu ñu fonkoon bokk ñi mën na réer mër te fi mu ne nii jafe na lool jeer ñenn jàmbaar ñi rek ñoo xam seen juróom-ñaari mbokk waaye ñëpp ci nit ñi seen baay baayam fa lañ mën a yem fa mu seen teg jaar daanaka yooyu nag lu mat a taxaw la yu mat di bàyyi xel na ndax ay attey da cee aju ñu war ko bàyyi xel baax a baax mbokk yi ci des daa bokk ci lislaam bi tere nit di askanu fa mbokk kenn du askan fi mu kenn du dugal nit ci askan kenn du ko ci génn loo ko fonk fonk lu muy mën a sax bu ko boole ci askan waaye bu ci xasee génne bu mu ci dugal yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam nee na képp koy woote woo ab baay ci lislaam te ka nga wax ne mooy sa baay du sa baay te xam nga ne du sa baay nee na kooka ajjana xaram na ci moom man iddaa aban fi islaami xayra abihi yaalamu annahu xayru abi fal jannatu alayhi xaram loolu xuppi bu rëy rëy la kon kenn du wax ne juróoma jur te diw jurul ci ñaaw teg yu mag yi la bokk waaye ku tàbbal ci askan ku ca bokkul yonent nee na jigéen ju tàbbal ci askan ku ca bokkul saqatutoo yàlla dara te yàlla du ko tàbbal aljana boo léegi mooy jigéen ne ci barab dem di ruuri ba am doom ni diwa jur doom ji te fekk diw moomu ci juru ko ñu askan ko ca njaboot ga te bokku ci yonent bi nee na ku def loolu yàlla génn ci yow te du la tabal mukk aljan kon ñaw te bu rëy rëy noonu kon yooyu yëpp nag bu ñu xamee mbokk bi dundal ko dana tax ñu mucc yooyu moo tax kenn sañ sa am doom mere ko wala nga mere yaayam tax nga ne ko juruma la yonent bi nee na képp ku weddi doomam gis ko jàkkaarloo moom xam ne doomam bu yomal xiyaamee yàlla dana ko gàcceel ci kanam ñépp loolu yépp ay xuppale yu mat a bàyyi xel bi ci des baax na lool am na solo ñu ko yàlla may waaye nañ xam ne nag doona ci dara kenn du ko tiitaroo kenn du ko bajantoo ndax fii ci àdduna la yam fa idaa nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaalu yow ma xiyaam moom dañ naan yoway kan ak loo doon def waaye fii ci àdduna nag askan baax na fi am na njëriñ ndax dal la may doole may la kattan mën laa aar waaye mën laa yëre ndax boo doon doonee ñu baax loolu dañ la dooleel nga mën a lu fexe bu baax waaye nag bu ko tiituroo ndax nit li muy tiituroo mooy lim def ci effort boppam gis ab taar kenn du ko tiituroo ndax ñaaw du du sëkk yàlla bind nit ki mu ñaaw bind ki mu rafet kon bu ko tiituroo naka noonu judd bu rafet it jëru tiitaroo dégg la amruka mal insaanu illa bi diinihi fala tatruki taqwa tikaalan ala nasab laqad rafahu lislaamu salmaana farisin waxad wadaa shirku sharifa aba lahab alxakim ko waxoon nee na maa ngi wàtt ci sa maa yàlla ne doomu aadama diineem lañ koy lañ koy jàpp bul bàyyi mukk ragal yàlla ngir sukkandiku ci askan wu bokk Salman Al Farisi bu doon ñun dañuy wax ne am ñag la àll bala la jóge lislaam a ko yëkkati Abu Jahlin ci askan ab sharif la bu fekkee sharif mooy mbokk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma nga sawara ndax weddi yàlla te gis ngeen am na solo lool fexe ba sa jikko rafet nga bokk ñu baax ji Salman ay jamono saxaaba yi dañ koy xëccoo ku ne naan salmaanu minna salmaan ci nu bokk yooyu salaam génn ne leen salmaanu minna ahlal bayt loolu jikko la kon ñu bàyyi xel ne mbokk bu baax gi baax na am na solo lool waaye nag dee su ko dee su tiitoroo su ko defee nag àq ji mbokk am ginnaaw bu ko xamee te foofu lay jeexale mooy mbokk dañ koy jokk ak mbokk dañ koy jokk jokk na ñaar rek la lépp loo mën a àggale ci moom ci wiw nga àggale ko ci moom loo ko mën a fanqal ci safaan nga fanqal képp ku mën a jariñ mbokkam te jariñu ko bu mbokk ko daga yàqu dog wala gës la ko laaj yonent ay salaam nag ku ci mën a jariñ mbokkam na ko jariñ man istataa minkum an yanfa'a axaahu falyaf'al booba nit la daa am ko jit fett am ci saxaaba yi ku ne am mën naa mocc ñu ne ah yéen salaam ndax mën naa koo mocc mu ne ku ci mën a jariñ mbokkam na ko jariñ kon mbokk li koy jokke mooy ëmb nga am ci njariñ nga bokk ko moom waaye nag fanqal ko ab safaan al muslim axul muslim laa yazlimuhu wala yuslimu loolu la xadis bi doo ko tooñ mooy doo ko xañ sa aq doo ko xañ aqam waaye nag doo seetaan ñu koy tooñe kon mbokk ngir mu dund ñaar yëpp yow loo mën a àggale ci moom ci yiwu def ko ma ngi dañ daan wax ne gàntu luñ man ak tege luñ mënut da yàqul mbokk kon ku ñëw ci yow di sa mbokk bàyyil xel ne yàlla mi def nga tane ko bu ko neexoon def safaan bi kon santal yàlla ci feeñal ci sant gi nga doon mu doon ay jëf nga feeñal ko ci dimbale waaye nag am safaan it bul setaan bukk sa mbokk muy tàbbi ci safaan loolu ci tënk mën nañoo wax ne bu ñu ko bàyyee xel ak mbokk dina dund waaye nag yàq mbokk yëpp nañu moytu yàq mbokk ñu moytu ko mbokk yi bari na lool réere mbokk dana tax mu nga doo ko dog nga nga da ko dog kon faw ñu yar njaboot yi ñu xam seeni mbokk ñu mag ñi daan def saa bu sa ba gan ñëwee nga woo njaboot gépp ñu kaay leen nuyu seen bàyyi seen maam wala seen bàjjan wala bu dee seen i mpañ ñu ne ko wax ko ne ngeen bokk bu ngeen dajee tey boole ngeen xam fii nag nit dana ñëw ci kër ba dem du xam kenn ci waa kër ko nuyu rek waa kër gi moom it du laaj yéen ñi ko bu ngeen demee bokk ko tas boobaa participer ngeen ci ko tas ndax yéen a ko waroon te yaatal leen kon faaw ñu yar ci lool bi ci des nag moytu ak rëy moytu nay. moytu ñàkk yitte yooyu da yàqu mbokk rëy da yàqu mbokk ndax rëy tax doo wàcc sa bopp te lu dal iblis rëy ko ko teg da jàmbaar la woon bay jaxasoo malaaka yi te du malaaka nayit jikko ju suufe la jikko ju xeebu la nit da koy moytu bari na mbokk yàqu nay ko yàqu mën a dimbalee ñu sàkku ci ndimbal nga gàntu ñoo ngi dem ba amalutoo la njëriñ bu seen bët xonqatee seen xel bu jëm ci yow doy na nit mu ndam saa bu sa bëtu mbokk xonqee xelam dem ci yow loolu julli bu ko yàlla na teg war ngaa sant yàlla te bëgg fas yéene ku bëtam xonq bu dikkee nga fexe ba dina ko xonqaay ba boo defee da nga am yiw bu baax baax bi ci des nag jox yitte ci nit ñi bokk na ci li matam moytu na ci mbokk toggoo luñ mënul li gën a mbokk yi wax léegi ne bi ñuy wax bis bu ñeneen ci dara loolu jaadu na noonu la war a demee ndax mooy tax saa bu bëggee ñu mën fay ñëw waaye léeg nga gis mbokk boo xam lu ko yàq gane ji nit mu def teraanga yoo xam ne yow leer na ne mënoo ko te moom itam bu ñu fi continuer du ko mën moo ci sa mbokk seet seet si na nga xam ne mbokk gaa ko yëkkati bu ko wan nii laal toll wan ko mbokk ngeen dund la nga am nga jox ko ko ngeen mbokk mu jeex waaye léeg-léeg nga gàddu yoo xam ne boo lëgee naan man doo fa dem ndax daal teraanga yam may def daal xam naa ne bu ma seet du ma ko mën a defal te boo ko defalut mu gisee ko neneen na xam ne liñ boole moo gën a rëy lool kuy dafa ngir yàlla nag dara nekk ci moom bokk na ci yàq mbokk moo tax moytu miiraas lu jaarul yoon maa ngi bàyyiloo xel mbokk yi da ko moytu bari nag kër yu tas mbokk yu tasaaroo kenn dootu duñu sa morom dañ doon miiraas miiraas bi teguwul ci yoon ñu xuloo kenn ku ne di xoole sa moroom pegg bët moo tax yu mel noonu waa mais nañ ñëpp jaar ci yoon kenn ku lam am xam ne yàlla ko jox bu noppee mbokk des dafa faral di wax ne na xam ne alal jële yàlla séddalu waaye mbokk bu mu daa bëgg ñu koy jokk bu ci desee ñaaw njort ñaaw njort day yàq ak mbokk yu bari nit ñaan ki dund nit romb la gisu la nga ne moo ko tey damaa bëggatu nuyu lu ma lu ma ko def taal ci ràbb yu baree bari nañu roy Mawlaana Cheikh Mouhamadou Fadil radiyallahu anhu ñu wax ne benn waaye daa ñëw ne ko diw sàngam mu daal booy julli jaaxal na ma julli gi dafa yeex lool mu ne ko da ko jox àqam rek beneen mu ñëw ne ko diw moom julli bi dafa gaaw bu jéggi dayoo mu ne ko daa bañ dara lu koy lu koy yàq lu ci dugg mooy lépp loo gis nga firi ko firi mu rafet jëf ju jéem nga firi ko firi mu rafet noonu la ñuy ànd ki mbokk bu ñu bëggee mbokk ki rafet jàppal ne waa jël nuyu gis la ne damaa gisut wala la tab ja waaye boo ko jàppee ne moo ko tey damaa nuyuwut day firi leneen bi ci àndandoo ju bon bari waa na nit koo xam ne yàlla da ko mane gan ay àndandoo wër ko di ko xeebloo ay bokkam ba mu xiibaleen te nag saa bu ay nit fexe ba nga bàyyi say bokk ñoom dañ lay jël yóbbu ci seeni bokk ñoom jariñoo say bokk ñàkk la yàlla gàll la ci bàkkaar boo la jëm topp la ko bàyyi xel loolu ku koy àndal ku ne na nga bàyyi xel ne bu mu la yàqal say mbokk da ci des it nag jëflanteem alal nañ koy moytu bari na ñoo xam ne du nuyooti dalaa leb te fayu la wala dalaa leb nga lànk bañ ko lebal wala da ngeen a jëflante nga nax ko yooyu dañ ko bàyyi xel mbokk moo gën a màgg loolu te jaam yi ba boo ñu rafetal ni ñuy wutee ni jëflante ndax yàlla noppi na ci yooyu kenn ku ne li nga war am rek ngay am moo tax yooyu jàpp naa ne jar na bàyyi xel jar na fonk te it nag ñu bàyyi xel ne ñu baax ñëpp fonkoon i mbokk di ko toppatoo di ko nemmeeku Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim kenn gënu ko woon a fonk ak mbokk ak xam ko ku gis xam na la mbokk yow saa bu ko mbokk mosaan a ñëw ñii dañu xam ne mbokkam na waccaal jamii ixwati wa nasabi fii rahmatin yow mashtadi nasbi bay boobu bay du mat jax taxaw la képp ku bokk ak sëñ bi dara war nga fonk di ko jàng lu bari bàyyi xel ne sëriñ bàyyi na xel ay mbokkam waaye war nga cee xam ne yëpp ne say bokk war nga leen fonk bàyyi leen xel ndax sëriñ ñaanal ñëpp waaye foofu nag dafay jagleel ay mbokkam ñaan kon ko am lu bokk la di jokk mbokk gi di ko dundal ndax yàlla ko santaane di ko rafetal ci dem gën a mate loolu it ndono lu ñu war a fonk la te fii nag loolu lañ bàyyi xel kon bu ñuy fàttaliku sëriñ Njóogu Mbàkke radiyallaahu anhu bu jàmbaare woon lool doonoon koo xam ne ñeme njaboot ak dëggu moom kenn mënu ko ci loolu moom mën naa ko seereel donte mën naa ko seereel yeneen waaye loolu moom mën naa ko seereel këram it bokk na ci loo xam ne ba tey gis naa ne nit ñi bàyyi nañ ko waaye lu ñu waroon di fonk ku mosaan xëy néegam na ñëpp ñu ndékkee kenn ku ne mu xool la ba xam loo fanaane ñu ñëw di gëmlante bu xam fu ñu newoon ba xam dañu nelu guddi lu tax ne la wut ku ñëwut ñu xam lu mu doon nga xam ne day contrôle lépp bu xëyee balaa génn dana xam kenn ku ci la nga fanaan yooyu am solo la mooy njaboot gi ngay yi nga jaboot yaa ngi leen di bàyyi xel yaa ngi leen topp waaw kon kooku uñ wooteel bis ci biir bokkam mu fonkoon mbokk googu lool mag ñi bare bare këram borom kër yi bare fa nekkoon man bokkoon naa ci ñenewoon ci kër ga ñu seq lu bari nag foofu laa yam waaye nag ay borom këram fa nekk mu yor leen yor seen njaboot waxtu wu ne ay mbokk yu bari di ko seet di ko fekk si mu fonk alxuraan lool fonk diine lool fonk sëriñ bi lool loolu nag kooku royukaay la kon yàlla nañu ko yàlla fayal aw yiw maa ngi siyaare njabootam di di ñaan yàlla sàmm leen te barkeel leen waaye wax ne nag am nañ doon rëy ndax yu mel nii bu la ko nit bu la ko yàlla denkee sàmm loolu la ko def amatoo droit yow sàggane kenn amatoo droit dafa ab safaan amoo droit nekk foo xam ne ku la fekk na la looy wut fii loolu rek am di bàyyi xel. kenn ku ne fa nga xam ne ku la fekk ne la war góor foofu nga di nekk am na ndono yoo xam ne ku mu xas gàllu ci saw lawas amutoo sañ-sañu doxee ni la neexee wala wax ni la neexee parce que li gàddu ci yow du yow dong ñu bari ñam ci ginnaaw topp leen loolu maa ngi koy fàttali sama bopp di ko fàttali mbokk yëpp ñu xam ne euh, am na yoon yi ci kanam nit ñi war nañ koy sóoraale ndax ku fi jóge ñu fàttali ko la ku fi jóge ñu waxtaane la wa innama al maru xadithun ba'dahu fa kun xadiisan xasanan li man waxaa fexeel ba bu ñu lay waxtaanee xam ne yow daal bëgg lu baax dem jumaa ja wattu barabu sëriñ bi jàng alxuraan fonk ay bokkam mën a bernde bëgg doomu daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ